waaw Serif ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm tey ñu fekk la fii sa biir kër ñu tuddee la làmb fii ci Diourbel ñu bëggoon rek nga wax ñu li nga xamante ne mooy sa yëg-yëg ci euh, drapo bi la tuddee ak nan nga ci nan ngay waaje jërëjëf may Mbaye Babacar maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen masawu coono ci déplacement bi ak dérangement bi waaye li nga wax am na solo lool je pense que foo fekk baax baax fekk la fa. ñu delloo la fa cër bu toll nii doo mun a yëg lu dul mbégte donc yëg naa ci mbégte bu mag a mag a mag a mag a mag li ko gën a waral nag mooy ñi nga xam ne ñooy samay mbokk di samay dëkkandoo di samay xarit di mouvement bi nga xam ne ñoo ànd ak man muy at kaaf tamit taxaw gunge ma ci début bi ba léegi waaye ma gis monde làmb yépp monde làmb tey wan nañ ma ni ci ñoom laa bokk. je pense que mbër yi même ñi am combat suba ñi ngi jaabante si kër gi loolu rafetlu naa ko bu baax a baax a baax encore une fois mbay bu fekkee sentiment ngay laaj xamal ne sentiment mbégte bu mag a mag a mag laa am ci bës bi nga xam ne Zal Confiance di suñu xarit di suñu doomu ndey moo ko yëkkati jagleel ñu ko encore une fois ñu koy féliciter di ko remercier di ko ñaanal ndam si li nga xam ne moom la moom la jublu. mu mel ni naar ku ko woo ci guuxum soow. woo nga ci lu mu bëgg sërif ñu xamoon mu nekk nitu làmb ñu tuddee la làmb tamit mu nekk la nga xam ne dañoo jël battu delloo ko ci biir ndaal. je pense que laajte nga ma fa tontuwaale sax laajte bi ndax nee nga naar ku ko woo ci guuxum soow woo nga ko si lu mu miin da ngaa yónni tubaab Paris rek dem na fu mu miin làmb mooy sama activité favorite je pense que man ku ma gisul fu fudul fi may liggéey rek ci làmb nga ma gis j'ai pas d'autres activités làmb laa am wala sama liggéey donc bu ñu ma wooyee si làmb dafay nekk loo xam ne dama ci sawar lool di ko rafetlu encore une fois jàppal ne daal Chérif day dem ci fekki fameem parce que foofu mun naa wax tour par tour ñëpp ñu nekk si biir làmb ji bu weesoo supporters yi donc loolu bu amee nga xam ne c'est ma famille en fait. ñu ñëw ci kër gi gis mobilisation bu am doole bi fi nekk je pense bien xam nañ ne bis bi fonk nga ko te xam nga dayoo. wallaay fonk naa trop parce que wolof daf ne bés boo gis. bës lay lebale wala muy fay bës bés bi nag man maa war a fay ñi nga xam ne ñoom ñoo ma ko tuddee parce que dëkk bi bari na borom décret mais ñu choisir ba man jox ma drapeau bu mag bu toll nii je pense que loolu mbégte la donc euh, waaj nañ ko ni ñu ko war a waaje ànd koog suñuy mbokk comme ni ñu ko waxee nii ànd ko suñuy xarit ànd koog monde làmb gis nga fi ay champion yu mag yu mel ne Cheikh Niang Cheikh Niang mi nga xam ne tey bëre na ak ku nekk Sénégal bu ne laa bëre na ak Papa bëri naa jiili bëri naa keneen ak keneen gaal Ndiaye Modou Lo ainsi de suite boo ne roi des arènes Modou Lo rek wax ji jeex na gis fi sama ay ñoom rakk ñoom Paul Maurice ñoom Tampon Ibra ñëpp a ngi fi tey teew wax fa dëgg yàlla tey sama xol dafa sedd bu loolu weesoo sama famille kenn desul kenn desul ni ñu jóge ba Dakar ñëw pour fekke si bés bi xeebu ñu dara dara dara si bés bi lépp lu leen wax ñu def ko si donc loolu mbégte rek laa si am mbay donc euh, mouvement bi tamit ma leen di remercier démb ñi ngi fii di def activité culturelle ba deux heures du matin man bi ma yeew fekk naa booy taxawaat si buntu kër gi pour pare organisation bi xam nga loolu engagement mënu ko weesu te yàlla xam na ni ñoom ku ne si ñoom mënoon na taxaw position bi ma taxaw donc suñ ma jiitalee rek xëy na dafa am yaakaar bu ñoom si man yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu. sa diggante ak jeunesse bi ñu gis euh, xale yi tamit dafa rattax trop secret bi lan la. secret bi mooy ouverture secret bi secret bi mooy leadership en réalité un leader mooy koo xam ne day influencer un groupe vers l'atteinte d'un objectif bien déterminé jeunesse bi li ñu soxla fi mu toll nii mooy ku leen de teg ci chemin teg leen ci axe en réalité am nañ ressources humaines de qualité yoo xam ne buñ ko capitaliser valoriser ko kenn du dem bàyyi njaareem parce que ay boroomi diplôme fi nekk. ay borom jomo fi nekk ay borom ngoro fi nekk moo tax man mu choisir sax la jeunesse ànd ak ñoom parce que xam naa ni ku nekkul un leader court-termiste maanaam suba suba rek mu baax mbala mu damm nga am benn vision boo xam ne c'est à long terme je pense que ñii ngay liggéeyal mooy la jeunesse encore une fois ma leen di féliciter noppalu wuñu nag c'est depuis que ñu nas idée bi noppalu wuñu yendaluñu gudd yendaluñu bëccëg mbay je vais te donner une information boo xam ne ça va sûrement te dañuy cotiser chaque samedi cent franc ndax sama jëmm bi ay xale yoo xam ne xëy na sax seen xaalisu ndekki la ñuy jël di ko cotiser ndax man xam nga ñooñu sas nañ ma sas boobu nag yàlla ma si yàlla jàppale parce que xam naa ne diis na ci sama ay wagg. diis na diis na ci say mag ñu gis nga créé benn mouvement wax nga ko ànd ci ak ay xale euh, mën nañu wax ne toll nii bokk nga ci ñi samp seen dënd ngir soxla ndombo tànk li nga xam ne moom mooy bokk bokk jaraafu jaraafu jaraafu dëkk bi muy mairie lan moo la impressionné ba nga def loolu ak sa objectif dëkk bi tey boo jotoon ci ci mairie bi lan mooy say objectif mbas euh, Babacar jërëjëf si question boobu nga ma posé je pense que du ñu caabi suñu bopp sax ci mairie kese mais lépp loo xam ne mën na indi développement Diourbel di nga ñu si gis bu soobee yàlla te buñ la ko waxee war nga ñu gëm parce que du ñu waxantu dañu ne dafa am ay points yoo xam ne njaareem daf ko soxla pour dem ñu tënk ko ci këyit mouvement be nar ko partagé avec la base point bi ci njëkk dañu ne il faut une équipe jeune parce que jeune moo ëpp prise de risque moo ëpp créativité dañu ne il faut tamit ñu ériger li ñuy wax principe bu euh, méritocratie mu nga xam ne dafa nekk principe de bonne gouvernance il faut ñu gis ko tamit ci fii nga xam ne mooy bokk moomeel bi ni nga ko waxee l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais instaurer tamit benn démarche inclusive et participative gars yi dañ daan tëju rek si ay bureau di nas ay politique di ko wàccee à la base généralement du am adéquation maintenant ñun dañ dañuy changer de paradigme dañuy waxtaan ak nit ñi xam seen ay besoins xam seen ay préoccupations sur la base de cette cartographie la ñu élaborer ay plan yoo xam ne dina permettre ñu sul suqali dëkk bi mais mbay suñu genre dëkk yi dañu néew doole recettes yi fi am yëpp généralement si marché bi lay jugee tant que population bi nag ñu ngi supporter développement dëkk bi dina metti si ñoom moo tax ñu war a dem vers le financement innovant la loi PPP a été signée donc dañu war a dem wuti ay partenaire dans le cadre du partenariat public privé wala dans le cadre de la RSE pour financer ay ay projets yu structurants projet yooyu nag bu ñëwee si dëkk bi ndaw yi dañ ciy gis seen bopp mën seen liggéey mag ñi mën seen gis seen bopp donc mbir mi daal tënk nañ ko ci loolu muy méritocratie muy équipe jeune une démarche participative mais encore une fois dans la recherche des partenaires ñu dugal la financement innovant. Euh, waaw bala ñoo dugg ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, élection yi sax dafa am lu ko jiitu muy campagne nga gën la gën la miin li nga xamante ne bii moom lu ma wax gën la maîtriser terrain sax mais jiitu la ci li nga xamante ne bii moom mooy terrain bi am nga jumtukaay yu doy sëkk ngir jëflante ak ñi nga xamante ne bii nga nar a mais nag mbay xam nga nag xëyu cent boo ko ak ngoontu terrain c'est pas la même chose affaire bi du xaalis sénégalais yi wan nañ encore une fois les leaders que du xaalis mooy def la différence su xaalis doon def la différence alternance du am su xaalis doon def la différence alternance du am xam nga lu ñu soxla ay idées yu leer ñu partagé ko base bi su base bi approuvé suñu idées yooyu ñu ànd ak ñoom def ndam te bas xam nga ni suñ la waxee dañ koy def rek dañ koy def. du ñu waxantu dañ koy def. waa mi ngi noonu parce que vraiment tâtonné wuñu xam nañu fi ñuy jaar gars yi dañ leen di xëlam mbay loolu yaa moo gën a xam. <laughs> dañ leen di xel yaakaar fi ne boo jàkkaarloo gars dañ leen di jàggi bu soobee yàlla parce que wax bu yegg moom yàlla moo ko mën. su amee rek yàlla neex. mais am nañ yaakaar ne suñu jaaree fa ñu daan jaar def ko nañ ko daan defee bu soobee yàlla yuuxu dana jub fuñ ko foogewul xam nga nag balaa moo gën a neex nga ñëw ñu bañ laa sóoraale. outsider boobu mooy posi suñu position bu ñu neex bu soobee yàlla dinañ dem si jongante bi ànd ak ñi ñu war a àndal di ñaan yàlla rek mu téyal ñu kàttanal ñu ba dëgëral suñu ànd waaye tamit téyal ñu jëmm ji ba lépp lu ñu mébét rek ñu mën ci egg ak jàmm wax naa la sànq ni wax mu yegg yàlla moo ko moom mais fas nañ yéene bu soobee yàlla wàcc ci géew bi ndax yóbbante galgal ubul lam Salimanya, Salimanya. Hey, hey. Saamu dana yatar réew Simlay jam, nanga dal na ba Simlay

eh boy jii lan moo la ñor lan lan moo la ñor ba léegi jox la ko. jërëjëf.